déroulement bi mooy li ma la wax bi ñu constaté li ñuy xojota xool ci bureau de vote yëpp ak renseignement yi mu jóge feneen te bu ñu fa jegee dañuy dem seeti ñeneen ñi yëguguñ dara loo xam ne manqué na ci wàllu administration li ñu war a def ci mbirum vote bi nit ñi ñi ngi génn ku su néew di génn kon dañuy soññ nit ñi nga xamante ni seet si woon nañ leen waxtaan ak ñoom ngir ñu xam ne lañ leen doon doyee tey mooy bisum njariñ li tey mooy bisub mat gi ak mottali gi kon ñi ngi lancé appel képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci biir département de Mbacké mais Sénégal gépp sax la ñuy wax ngeen génn dem voté ji ci jàmm ak salaam te bu ngeen voté jee ba noppi dem ndànk dellu seen i kër toog ñu bokk déglu résultat yi képp koo xamante ni tam yaa ngi doon yëkkati sa ay ñaan ak say soññi sa njaboot mu jëm ci bis bi ñoo ngi lay sant mi aussi di la soññi ci ñu xam ne soññee bi nañ ci gën a insister ci biir kër yi ñu yore njaboot gi ci biir kër yi nañu sonni njaboot gi ñu génn dem voté ji ñuy voté si bu ñu voté ba noppi ñu dellu ci kër yi tey lancé appel jeunes yu góor yi ak yu jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñu bàyyi xel ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te du dañoo bëgg dër wot bi ni mu déroulé ci jàmm ak salaam ñu eggale ko ci jàmm ak salaam ba bu ngoonee yàlla suñu borom mi sottal lu mu sottal ñu xam ne loolu te mu ànd ak yar ak teggin loolu la réew mi soxla mais surtout dëkk bii ñu nekk loolu la soxla te loolu la kilifa yittewoo ci ñun kon ñi ngi lancé appel ñëpp nañu génn massivement dem wote ji bu kenn xeeb sa benn carte pour wala voter def sa